monsieur le ministre ñu ngi leen di nuyu chers collaborateurs yi aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax monsieur le ministre man damay appesantir sur la sincérité budgétaire d' abord damay wax ci loi de réglement bi am na luñ ci loi de règlement 2022 am na luñ ci jot waaye c' est incomplet xam nga dañoo war a jot waroon jot rapport de conformité bi dañoo waroon jot rapport euh, cour de comptes te normalement sax dañoo ko waroon a voté loi dañoo waroon voté année end moyenne suñu voté année mooy n moins 1 ba ñu xam ne lii lañ ci exécuté ñu doog a dugg ci beneen année pour mun a voté budget bi moo tax may wax ne ne le budget n'est pas sincère je le dis encore parce que le budget n'est pas de 7003 virgule 6 milliards yow wax nga ko ci rapport bi sax mais de 5755 virgule 39 milliards parce que am na nouvelle loi sur la loi des finances numéro 20 2020 07 buy wax na ne dañoo war a exclure l'amortissement de la dette ci budget bi kon kay dindi ko ci rek nañ ko ci dindi ñu xam ne nag ñëpp sénégalais yëpp xam ne ne c'est 5755 la ñuy xaar waaye xaaruñu 7000 3,6 euh, milliards bu ñu jogee foofu PSE bi PSE bi comme je le di toujours man nee naa ne du du sur la littérature booy lire tu es séduit mais modèle de financement bi munoo ko enrimer sur la dette nga réussir ko nañ jël tey l'intérêt de la dette 5000 578,3 milliards deux fois dépense ministère des finances de de de la santé. deux deux fois trois fois dépense protection sociale mais naka ngay récupérer sa capital humain pour mun a dem de l'avant bu ñu jógee foofu FMI nag ne la yow yaa ngi bokk ci pays à risque de surendettement modéré mu ngi mel ni rek docteur bi jàkkaarloo yow ne la da nga am surinfection bactérienne waaye c'est pas te mu leer na la yaa ngi jublu ci dee donc ça pose problème ba pare monsieur le ministre nga endetté ba pare nga am. sa ministère yi bëri sa ministère yi dañoo bëri émiettement ministériel dafa am directeurs généraux yi lan la ñuy liggéey nga yokk ay agence ba pare kon sa dette bi da nga koy fayee ay bor comme ni ko sëñ bi waxee léegi nga abandonné maintenant sa ko appelle le secteur primaire bi nga xam ne moom moo war a booster le secteur secondaire ñu dem vers ce qu'on appelle une souveraineté bi ñu soxla yëpp souveraineté alimentaire souveraineté industrielle loo ci bëgg rek ci loolu ko war a ne tant que le capital duñ ko mun am léegi nag dafa am lenn loo xam ne nag mun nañu dimbale vraiment budget yi ñu soxla ñu koy am mooy il faut que nag ñu am ñu xam ne ñun nous avons des chocs endogènes en nu yi nga xam ne ça nous concerne directement mooy la corruption les détournements d'objectifs ñu jox la alalu réew mi doo ko yeggal fu mu war a yegg te ay budget programme la ñu wax résultat lañu war a am kon dañ fexe di am résultat bi c'est-à-dire gée ngi new bu dee école lañ fay tabax su demee ma gis école bi ñu ne école bi 1000 milliards lañ ci def wala un milliard lañ ci def un milliard yëpp dem na ci école bi tant que defuñu loolu billaay duñu réussir yow doo réussir te yow. vous êtes bon bàyyi leen ma gërëm ko tuuti nag xanaa. <laughs>